donc noonu la ñuy def euh, daal di jóge foofu nga xam ni moom mooy ca Tëngéej daal dem euh, fi nga xam ni moom mooy place du souvenir ànd fa ki nga xam ni mooy madame Carter ah Mati maa ngi lay kontaanee madame Carter maa ngi lay nuyu ñu dem ci Queen Buffet euh, Baïchana foofu nga xam ni moom mooy ca place du souvenir mu nekk défilé bu neex a neex a neex am ay yëf yoo xam ni muy woon ci biir nañ dem place du souvenir ak ki nga xam ni moom mooy madame Carter ñu xool lan la ñu indil ci li nga xam ni moom mooy Queen Baïchana ayca. sargal nañu leen am mbégte ak bànneex dali si waat ak yéen ci Dakar ne dort pas wala Dakar ne dort plus comme Aba ni mu koy waxee. waaw maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Mati maa ngi lay kontaane nga jongo ma waaw waaw. waaw gis nga def à la légère rek xam nga fi ñu toll nii dañu nekk ci mois de mars. jongo ma mu nekk weer woo xam ni dañu ko jagleel jigéen ñi waaye man damay faral di wax ni benn bis doyul benn weex doyul parce que xam nga ni jigéen. li yàlla def ci moom dafa bari. dëgg la tey ñu ñëw nag ci programme bu mag bi nga xam ni euh, waa King Buffet ñoom ñoo ko organisé ki nga xam ni sama xarit bi nga xam ne moo di euh, Sana Events moom moo ko organisé mm-hmm. ah, King Buffet la def maanaam reer bu ànd ak waxtaan mm-hmm. waxtaan ak juriste yi mais waxtaan ak bàjjanu gox yi xam nga ni société buy dox dëgg bàjjana gox da caa bokk waaye jigéen ñi nga xam ni que nii dañuy yor seen i entreprise la ñuy faral di wax ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër xam nga ni Mia moo nekk sa ginnaaw. dëgg la xam nga ni jigéen mënatul a ñàkk ci société bi. dëgg la donc loolu moo tax tey jii ñu organiser bis bi fii ci nga fa nga xam ni moom moo di place de souvenir comme ñun ay jigéen lañu jigéen Youssou Baraw dañuy ànd rek daal di xool waa salle bi naka la ñuy féetee li nga xam ne moo di bis bi waaye xool aussi naka la ñu nar defee ci li nga xam ne moom moo di bis bi. waay madame Carter waay bu am solo reer maanaam ñu xool ba xam. mais Mati. mati yaa am arñi mati bëgg naa sa waaxu man sa jàggar jàggar yi <laughs> jigéen ju man góor la jàmbaar la joo xam ne que ni macha allah man sax damay bokk ndax xam nga damay yor imprimerie sérigraphie donc damay bokk ci affaire yi maa ngi lay ziar. delloo ziar di la ndokkeel dèjà ci li nga def. merci naka nga mën koo mën a expliquer sénégalais yi lay seetaan rawatina ñi xamul programme bi lan moo ko wundu. alors Queen bi fekk concept la. Mhm. concept bu ñu jëgalee ji bépp jigéen buy yëngu ci business. dëgg la bu jigéen bu bëgg donc moom la ñuy wax femme leader donc Queen Buffet mooy buffet de rêve hmm. donc tous les deux mois dañuy organiser un buffet en l'honneur des femmes pour échanger et débattre sur les problèmes qu'elles rencontrent dans le milieu du travail dans le milieu du showbiz moo xam ki nga xam ne elle est et euh, dans les affaires ki nga xam ne mi ngi ci bureau donc les problèmes qu'elle rencontre en tant que femme donc moom moo tax ñu créé concept bi Buffet c'est tous les deux mois et c'est dédié à toutes les femmes pour échanger Après, trouver des partenariat et ouvrir son portefeuille de connaissances et de clients de clientèle aussi voilà. xam nga ñun jigéenu TFM xam nga ne ñun ñëpp dañu am jom parce que kenn ku ci nekk dëgg la yaa ngi télé bi waaye kenn ku ci nekk yaa ngi góorgóorlu donc man maa lay wax ci seen tur ñun ñëpp dañuy bokk. waaw ah, kon jeex na bienvenue dans lu tax nga tànn bàjjanu gox yi aussi parce que nag c'est important. voilà bàjjanu bàjjanu gox yi c'est comme les marraines c'est les marraines les femmes toutes nga xam ne. elles sont, euh, elles ont des difficultés ou bien elles ont besoin d'être orientées, d'être conseillées. Donc, euh, Badianou ce sont, les marraines, ce sont les marraines de toutes les femmes sénégalaises et euh, elles nous accompagnent. Pourquoi Elles nous orientent. Pourquoi juristes aussi euh, Les femmes juristes, bah, elles nous accompagnent aussi, elles nous aident parce que Euh, voilà, nous nous nous nous orienter par rapport à tout ce qu'on veut faire, et euh, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine des affaires, euh, que ce soit euh, dans, le domaine, euh, tout autre domaine, euh, les femmes juristes, donc elles sont utiles, on peut dire qu'elles sont utiles, et c'était important aujourd'hui qu'elles mettent leur touche à cette innovation qui est Queen Buffet. macha allah moo ko fi fii ay ca Queen Buffet foofu nga xam ni moom mooy euh, ca place du souvenir Queen euh, Buffet by Shana Evans ñu yónni woon fa ka nga xam ni moom mooy madame Carter Mati mais Mati toj nga fa xam nga Mati ñoom Oprah ñoom Oprah ñooñu ñoom euh, Ivy wala Eve ñoom Marie G ñooñu rek nga may jox américaine yooyu nga xam ni tarkala dañu def seen temps non tey Mati nekkoo sax Sénégal